يكفيني أدار يا الله صلي بقاء أبي بفيق يا الله بسم الله يكفيني أدار يا الله صلي بقاء أبي بفيق يا الله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 xam naa nag bëggoon nañ sëñ bi nga sarax ñu rek ñaari kàddu rek ci ñi kenn ko fi ki nga xam ñoo wàññi ko ak daayira bi ndax daayira yoo lañ fi nekkal ca gise gi yombul Mbàkke bu ñu mayoon tuuti rek ñu waaw kon kon ñoo ngi Tuuba euh, mboolem kilifa yi ñu fi fekk si maa ngi fas yéene jot la ay kàddu yoo xam ne kàddu yi ndigal la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 daje ceeg yërmande yi sunu borom daje ceeg njëggalu sunu borom mu doon loo xam ne fa ñu jëm mu gën leen fii nga xam ne fi lañ jóge ñi nga xam ne yàlla dafa dogal it ñu ñu nekk hôpital ba tey ñu toll ci juróom am ci ñaar ñoo xamante ne dikk nañu euh, dellu ci seen i bokk euh, ñetti ñi des loolu lépp sëriñ bi euh, boole na leen ci ñaan gi ngir ngeen dalal seen xel xam ne lépp moom la war.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 te di la gërëm bu baax a baax baax noppaluwoo tekkiwoo ak laxasaay jekkiwoo nelawoo mhm. waxtu wu nekk yaa ngi dem yaa ngi dikk mhm. te kat waxoon naa ne yéen bii ñu la yem ci at yooyu yeenu génn ba fii nu toll nii ku ko xeeb bala nga sobente ko daa tigul ci sa kaw bopp lu diis gann la waaye saraxe nga sa der bii mhm. saraxe sa jëmmu ji fab sa lépp joyal ci sëñ Tuubaa bàyyee mbinde fi ak sa der ak sa lépp